bismillahi irrahmani irrahim wasala allahu ala nabiil sawi ridwaani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala bokki jullit yi bokki taalibe noo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu sëriñu Ousmane Mbàkke Gaynde Fatma ak bokkam yi mu fi bokkal nekk muy njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha te nekk ci biir njaboot gi ñu teew fi teewaayub Serigne Ahmadul Muxtaar mi nekk ci bopp njabootuk Cheikh Mouhamadul Moustapha ñu yëkkati kàddu jëme ko ci Serigne Xamsatu Mbàkke moom Cheikh Chouaïbou kàddu yi nag ci ñetti tomb rekk lay tëdd benn bi mooy fàttali tuuti ci barab bii ñu nekk bi ci des mooy fàttali ci bis bii nu jëm bi ci des ay cant la yu jëm ci sëriñ Hamsatu jóge ci sëriñ bi barab bii barabub Abdul Xadim la barabub Sëñ Tuuba la barab bi nag mënee su ko tudd te tuddoo sëriñ bi Abdul Xadim moom yi man de dama ko ñemewut dogal mbubb ndax dama xamul jëm jëmm ji nu mu toll ni mu toll ci man laay xam waaye xaw ma nu jëm ji toll moo tax ñemewuma ko dogal mbubb mboolem mag ñi ko dogaloon mbubb it bañ dikkee mbubb ya daa cëkk parce que kenn ku nekk fa xelam toll foofa la ca waxe aw teeñ nag boo ko ne yàlla bind na lu gën a rëy bopp mu weddi ko ndax ci kaw bopp lay dund ba am cay sët du ko wàcc waaye ni àdduna ëppe bopp noonu la sëñ Tuubaa ëppe sunum xel tur yiñ koy wooye tudd ci benn mboolem tur yiñ koy wooyee boo demee ci mag ñi dañ naa la xutbu la ñii naa la wàlliwi la ñii naa la ci labdaal yi la bopp ñenn ñiy jàppe ko xawsu ñenn ci des ni la boroom xam-xam la ñenn ñi nga xamante ni nii xuus nañ ci géejug cofeel ba mànd ca ba amatuñ sago ñu ni yàlla la donte jubluwuñ ci yàlla mi bind jaam ñi sax waaye da leen a jaaxal ñenn ñi ni du nit ñenn ñi ni sëñ bi njóoma la ñoo ñëpp xam nañu yooyu du ci dara dañoo jaaxle rek dañoo jaaxle moo tax duma ko daggal mbubb waaye sëñ Moussa mi wax ci ak maanu dani billaahi ñoo xeej ji seddu cër bu doon billaahi yaa mat la nga doon Sëñ Tuubaa mu mat na lu mu doon xaw ma lu mu doon nag waaye moom mat na ko waaw ah, xawma lu mu doon waaye mat na li mu doon ndax li wér te wóor mooy sëñ aadama géey mañ wax ni moo jëkk a lu ci taalibe ba ci taalibe bi nga xamante ni jàpp nañ ni bis bu joxee ay loxoom bu ko roccee ca la addunay tukki ñoom ñëpp boo leen boole woon ñu doon benn birig nga teg leen ci balance teg sëñ Tuubaa ci balance sëñ mi wat nu ñun ñëpp lu ci kenn ci ñun du ci kenn ndax mboolem ñi nekk ci diggante boobu yi kenn ku ci nekk la nga doon sëñ bee tax nga doon ko te moom li mu doon kenn ci ñun taxut mu doon li mu doon kon mëneesu la wax ci moom lu bari waaye dañuy yem rek ci lim wax boppam am na ni abdun xadimun laa yarim foofa rek lañ lañ lañ cay yem ndax tusu daway wax ni mag moo xam ne ba muy yanu fekki woo ko te sutoo ko ba ban koo njoolu te néewu la sama ndab nangama ci nekk soo waxee la ca ne dangaa waxe sam xel waaye waxoo ci ak maano moo tax moom ba muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni fa mablaxul ilmi fiihi annahu basarun wa annahu dunahu aqlun wa afkaar loolee rek la ñu waroon wax ci moom nee na yonent bi loo wax ci moom lu dul mbindeef la juum nga la leen li ci des lépp xel ak xalaat la rek dañuy nattale waaye ëpp na ko moom itam foofii la toll ci ñun barab bii nag moo ko sanc ci 1890 ginnaaw bu mu sañcee barab bee fee mu tëdd ñaari at la sañc barab bii barab bii moom la sanc tudde ko daarul xuddoos li rabbil aalamiina mursilu ahmada mag ñi daan ko wooye kër yàlla diiru lim fiy nekk menn mag mosa ko fi mosa fekk te woowu la amul mag ñi kër yàlla lañ ko tuddee woon kërug weetaay la ko tuddee woon néeg bii lañ tuddee woon bayti moo doon néeg bi mu daan duggee xalwa ci jàkka ji la daan jullee kër gi moo tudd daarul xuddoos daa mel ni nag turu quartier bi moo nangu turu kër gi kër gi nangu turu néeg bi néeg bi mooy néegu boppam fi la doon nekk di gis bi sallallahu alayhi wa fii la waaje liggéey bu rëy bii nga xamante ne ni moom la sumb ba kenn ku nekk yëg ci sa bopp ba tàpp ni yaa taxoon sëñ bi laxasaayu dem ci géej fii la ko doon waaje juróomi at la fi def yoo xam ne fu mën a demaat dana si ginnaaw bi la sañ ci daarul rahman muy kër sëñ bu mag ñu tuddee ko daaru naar mu fa daan dalal gani naar yi nga xamante ni ñoo ko daan fekk si te ñooñu ko xool tur yu xam ne rahmaan a baax ñoom ndax ndimbal rek lañ doon wut si sëñ bi sañ ci daarul minan tuddee ko këru xéewal daan fa dalal gan yi ceddo yi nga xamante ne dañoo tuub bàyyi lañ nekkoon te ñooñu kenn ku ne xam na ni am na noo xam ne boo leen téyewut seen xel delluwaat ca lañ newoon xéewal rek baax ci ñoom mu leen daan dalal daarul minan fii mu defoon ko kër yàlla di fi jaamu boromam di fi waaj waaj wàccaay mu rëy woowu yi nga xamante ni ni yàgg na koo waaj moom la doon def fii kër gi noonu yi la ko sance bu weeru koor jotee ci jàkk ji lay dugg jàkk ji ci biir kër gi la woon Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma bi muy lotissé dëkk bi moo ko génne ci 1960 dagg ci penc mi génne ko jàkk ji ay doju xandeer jóge woon ca jàkk ja ca cëwén ba fu Sëriñ Tuubaa di jóge moom lañ indi woon ci barab bi xam too ko barab bi suul ko fi ngir xam ne jamono dana ñëw dees na ko liggéey cërub sëriñ Mbacke dina ci 1978 bi mu wutoo sëriñ Cheikh Mbacke moom la jëkk a liggéey moom la génne loolu ci màndargay kër gi la bokk Sëñ Tuubaa it daana wax ni mooy këram gi nga xamante ni Iblis mosu fee teg tànkam alhamdulilah loolu wax na ko ay yoon mag ñi dégg dugg na fi itam xalwa boo xamee sëriñ Daaru Xasan Njaay mooy jiite sëriñ bi di tollale ci moom fukki fan yi mujj ci weeru koor ci bay sësin la dealeef ci kaaf ci jàkk ji muy jàkkay daaru xuddus ji fukki fan yi mujj ci weeru koor Sëñ Tuubaa fukk fukki fan yi mujj ci weeru koor daan fekk li lay def moo tax sax yoon wi li nu dal ci laylatu xadar dal nu laylatu xadar fu mu doon ni doo dégg menn mag ci nettalikat yi ñu ni la weeru kooru at sàngam ca nangami fan yi la Sëñ Tuubaa laylatu xadar ndax fukki fan yi mujj ci weeru koor yi ca biir jàkka ja na nag kenn xamut lu mu nekk benn yoon la ci sëñ Mat Lamin Jóob musa nettali te nee na loolu njaareem la ñu daje ca ëtt ba di def laylatu xadar sëñ bi génn ni leen lu ngeen di def ñu ni ko laylatu xadar mun leen du tey dem ay fan ca mu génnaat ni leen bis ba ngeen doon laaj tey la waaye sëñ Mat Lamin ne dañoo fàtte ñaata fan la ca weer wa moo tax li ci gën mooy bu weer wi amee ñaar fukki fan jàmm tàmbalil bis bu ñëw nga tàpp ni tey laylatu xadar ba keroog ñuy wari bis bi du la mucc te loolu mooy li yonent bi ni seet ci fukk yu mujj yi ci weeru kër gi wàccuwaay boobu la am nga gis ni sëriñ Mat lamin Guèye bàyyi la ci sëñ Moustapha Guèye mi nekkoon daari kaamil te këram jàkkaarloo kër sëñ cooy bu gii moo ne ci koñ mi ñu bari xam nañ ko nee na baayam nee na ko toog naa fii ci buntu kër bi mag sëñ bi sëñ Tuubaa nee na sëñ Tuubaa ni ko Mat Lamine mu ni ko Mbàkke mu ni ko diggante fii ma toog ak fu pencim sa borom bi di taxawee soli dal xaju fi waxantuma di war dara loola lam lam lam ni xamal mooy man sama sama sama jàppuk bopp xam du ma dara foofu la sama xel jàpp naa ne sëñ fii mu tëdd penc mee koy fekki waaye du jóg di dox ji wuti penc ma moo tax mu diggante fii mu toog ak fi pencum saa borom bi di taxawe soli dal xaju fi waxantuma ak di war dara loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax fii ci barab bi Sëñ Abdou Lahad ku ne xam na ko dafa waxoon ni ñëw Tuubaa bëggee naat te ñëwoo bayti moo nga jëm waaxu jëm cim néeg dem ba jub néeg ba mu riirido ba wàññi ko ñooyam fii la borom doon waaje maam Thierno Birahim jóge na Daarul Moxti ànd ak sëñ Matar Sàmba ñëw yandu fii ci kër gi ba ngoon jot mu takkaat dellu sëñ Matar Sàmba ni ko li nga def jaaxal na ma mu ni ko mu ni ko maa gis nga jëm Touba demoo ca barab ba xanaa yenn Daaru Xuddoos ba ngoon mu ni ko ñi fi sëñ bi dalaloon laa doon xool ba xam ñu ngi fi walla déet waaye demuñu fenn ñu ngi fi te keesa ngi ci biir koo xam ne ku ko sow fit may mën ngaa dem ma nga fa mag ñi yàgg nañ koo waggar moom kenn ku ne yaay testil sa bopp ba xam ma nga fa walla nekku fa ndax fal leen sëñ bi daa bàyyi woon te ñëwatu sëñ Modou Raïs Lo mii na nga nekkoon njaareem doon doomi sëñ Siré ñu bari xam nañ su daan ñëw ci kër gi te soxla sëñ Mor Fall bayti mi yor kees gi kër sëñ Omar Ndiaye daara jee ca koñ ba fa la ñuy daje ndax da ko naan foofu yi nga ne daa fees dell ba kenn xëju fi te lañ doon wax doon ab làmbut bi sëriñ bi ñibbisee Touba bañ demee ba ca koriwa la sëñ muusaa yee salaat kër gi ñëw dëkkee gentub sëñ bi sampaat néeg yi fi mu ne woon la la ñuy wooye école française ba ca sàq ma tabax boobee moo fi jëkk a nekk ci Touba 1927 la ko fi sëñ Touba deflu waxoon sëñ ma ndumbe ni ko defal ma fa kërug téere gu të sawara sëñ ma ndumbe moo ko tabax mooy bi fi jiitoo mooy bâtiment bi nekk ci biir kër gi ca koñ ba kër gu të sawara moo tax bi sëñ Cheikh Mbacke di defar jàngukaay yi mu ubbi ko école mag ñu ne ko sëñ bi waxul woon loolu dañu woon nañ ko fi defar këlug téere gu të sawara sëñ Cheikh ni leen loolu nit lay doon fu ñuy préparé nit nit la ñuy préparé ba mu të sawara kon nga gis ni lu am solo la lu mat a bàyyi xel loolu mooy pàkk bi mboolem doomi sëñ Tuubaa yépp daawuñu fi jóg sëñ Modou Moussa mi nga xamante ne nii nag moo ko dëkkee moom yàlla dogal na moom ak njabootu sëñ bi jëkk koo wuutu gannaawam taxaw taxawaay bu am solo boo xamante ne nii fii yoon wi ak si tey pas-pasam ak taxawaayam ak dëgëram moo tax yoon wi ak lu tax mooy nii Touba mel tey sëñ Touba mi tëdd fii rek tax Touba mel nii wu mel bu sëñ bi tëdduloon fee ku la man ne la mën na maa indi Touba fii xanaa nga dem ba teg ci sa bët ndax Thiène def na fa juróom-ñaari at ba léegi ak séegul foofa njaarim def na fa fukki at ak juróom ba léegi ak séegul foofa gànnaar fam newoon tas na ci sancaat ko lañ toll fii juróom-ñaari at la fi dëkk génn na ko fanweeri at ak ñett door fee del siwaat ba mu koy sanc ci biir kër sëñ Saaliwu foofee la mbaar mat la bul foofu say ma newoon foofa la waxoon ni waccaal ilaahi maskan yi tuuba abad misla smiha bi jaahi xayri man abad bayit mag ñi di ko jàng waaye nu mu doon nangoo dana leen jaaxal ndax fanweeri at ak ñett ginnaaw bi bayit wa door a ñëw firi boppam muy sëñ bi tëdd fa tëddatu fa jóg loo loolu lu wér a wér la lëgg yëpp sëñ Moussa ndax damay wax ni tuubaa climat bi neexut ndox mi taxu koo neex amut jamaa amut pétrole neexut a bay te nit ñaa ngi dalaf dala fi koo wax mën la tuubaa laa jëm sëñ Bamba mi fi tëdd rek a tax bu du woon sëñ bi kenn du fi jublu jëmmam lañ mënta wecceek dara moo tax Tuubaa agsi fii mu agsi loola bu ci sëñ saa yemoon képp daana doy waaye nag sa tax mu deer mbagg sëñ bi dafa daan wax ni dee leen ma xool ci ñi ma fi nekkal ba ba may dem waaye bu leen ma natt ci sëriñ bi moom xamoon na kuy sëriñ bi lool loolu yi daana ko bàyyi lu xel bu baax a baax daana wax nag lépp lu waay am ci sëriñ bi ba nga koy liggéey maag yow ko ànd ma ëpp leen leen nag njuréel gi daan nañ dem ci curi ba fas wu ko waaye indil indi naa foofu ko gën nañ dem ca sàq ya sàq mu foo indi fu ma ko nañ dem ca téere kamil bu ko waay indi bindal bindal naa ko kamil yu ko dàq daal di yëkkati loxoom ni bindal ñaar ko ñeent fukki kamil ak ñaar yoo xam ne man kepp la te bokkul ak kamilu bokkaate yi ndax mook sëñ Fallu bokk nañu kamil mook sëñ Omar Mbàkke bokk nañu mook sëñ Masamba bokk nañu kamil kamilu bokkaate sëñ bi tëj na leen ci ceyin weer woo xamante ni da leen di bindloo weer wépp ku ci génn néeg bi da ngaa yeesalaat sam njàpp ñëwaat doon ñu daakaande lañu doon dunde ak kubéeru satl ak ndox ba keroog weer way jeex kon li fi ne day jaay waaye mayewut sar sarxewut te sëñ Tuubaa daana wax ni àjjana ak barke ak arxuraana yam dangay fay ba mat suñu borom door la koo jox njëg gi nanguwul nga avance ko di ko deseel da ngay fay ba mat rek moo tax mag ñi liñ am dañ caa sonn li ci des bu ñu toppee waxtaan wi mën naa gën a gudd waaye bis bi nga xam ni moom lañuy waajal muy bisu fukki fan ak juróom-ñeent di ñaar fukki guddi ci aw tamxarit bayitu sëñ Tuubaa wii mu doon wax waccal ilaahi maskani Tuubaa abat keroog boobee lañ ko réalisé mu ñëw muy talaata fukki fan ak juróom-ñett ji sëñ Muusaa jóge jógee ñaaxeen jaar gaawaan ñëw njaareem diggante tisbaar ak takkusaan dal ci këram googi ci wetu kër gi mag ñi gis ak moom waxtaan ak moom ni ko sëñ bi mat naa nemmiku ndax lii mu def gëj na koo def gaawu la mujj julli jigee boobaak léegi xamaatuñ ci moom dara mu ànd ku dal ànd akuk teey aku gëm yàlla bu baax a baax di maslaak ñoom ba julli timis ba pare tàbbi ca biir kër ga ànd ak mag ñam mar àndal sëñ Mat Lamin Jóob ca la sëñ Cheikh Xari nijaay sëñ Basiiru ca la sëñ Mataar Si la bëkk nekk ca la bañ demee di di di gëstu ba gis ni li suñ borom doon diggee loolu agsi na tey mu xam ne responsabilité wàcc na ci kaw kawam mooy la taxoon sëñ bi di ko waajal la taxoon sëñ bi ni ko naa dem Touba te bu xat damm la taxoon sëñ bi ni ko su ma demee Touba lépp lu ngeen tàmbalee te danaa ko àggale waaye su ma demut tuubaa da dana mel ni demaluma leen woon fenn keroog la doon moo tax sëñ bay jaxat naa ko sayam wu rëy wañ daan musuloo ko daw moom la la yan keroog la yanu loola mat naa bàyyi xel bu baax a baax te loxo yim ko fekk fanweeri at nangam yor nañ ko yor nañ ko sëñ bi fu mu yendu mbaamu fanaan fa ñoo ko fa yendal résidence surveillée la ne ma kenn amul droit déplacé ko te tubaab bi yëgu ko njaareem fukki at ak juróom la fa nekk ñaari yoon la ko mos a génne benn bi 1919 la xuru Mbàkke la ñëw maam Cheikh Anta ko ñaanal autorisation bi ci des 1922 la Dakar la fi dem gouverneur général moo ko woo kon bu wàccee ci njaareem ñu ni dañ koy yóbbu Touba fit dëgg koy def looloo tax bokk ko saa waajalee jël sëñ siiru teg ca kanamu oto ba mu toll ci fanweeri at ñaar képp sëñ Basiiru nga gis ni kon nit ku gëm yàlla ku dal ku amum xel te mën a lijjanti ndax fanweeri at ak ñaar ak sëñ Tuubaa ni mu toll ak ni mu feese jamono nga yor ku ñun la yaa koy yóbbu yaa koy taxaw loolal beneen mbir la mooy xamal ne la sëñ bi ni mu waajale ak njabootam moom sëñ Moussa mu toll ci ñeent fukki at ndax te moom ak ci njaboot gi des njaareem lu tax mu des mooy daa raxal fiirug jàmbur day xaar seen borom fiir gi ba xam bu ñëwee nu ñu réagiré su demoon dañ naan daa daw moo tax ñi naan sëñ Moodu daa yóbbu sëñ tubaab ba ak bundu la door ko wax tubaab bi man leen déedéet lool du jom du aw fit te sëñ Moussa ñàkkut ci yooyu benn daa dem ci tubaab bi wax ko ànd ak moom ñëw tubaab bi ñëw mu wan ko ni ko sëñ baa ngi nii dafa génn àdduna ab tubaab ak diir bi ñu amee ak sëñ bi dee su muur dara rek ni leen dafa génn àdduna ñu gëm ko ndax fi ñu jaar moom ñoom jàppoon nañu kii du génn àdduna ndax fi ñu jaar ak demee ci ndar lañ daj ci moom mu ràcc ca ñu ñëw ndakaaru nga gis néeg bañ ko dugal ba sëñ bi di ko fàttaliku mu mel ni guddi googaa gën a metti ci moom ida zakartu dalika al mabit wa dalika al amira wa sabota taarat ila jihaati bil armahi lakin wa saba anil maahi nga gis ni diirub géej gi daanaka loolu la ci gën a fàttaliku nga xam ne jaral na ko jëlaatu xeej jàmmarloog tubaab yi waaye yonent bi moo koy defal nga gis mu mucc ca loolu ñu yóbbu ko gabon gabon takk nañ ko ci garab dóor koy bal taxaw na ci kaw montagne ñu ba ma kooki bagaasam mu wut si def nañ ko ci pour sofe ba mu tàng ñu tëj ko ci biir dugal nañ ko ci mbana taal mbana goo xam suñ sëñ bee ko nettali nee na sàllaw ak kaw diir lañu indi goo xam ne donc leer ga ñeent ñu am la fa ko yëkkati mbaa juróom nee na kubéeru cin gi rek juróomi ponk la ko yëkkati wala ñeent nee ñu ñulug ba mu tàmb mu dugg ci biir ñu ni ko dugal mu dugg ndax daa waxoon ni lépp lu ma tubaab yi digal lu dul mooy yàlla danaa ko def ñu ni ko dugal ci mbana gi mu dugg ci mbana gi ñu ub mbana gi taal ca taatuwa di ba 13 heures jot loola kenn na ni lu rëy la waaye lam ci mujj rek nee na ba waxtu julli jot tubaab yi ni dañ seet si ba xam ñor nga am déet ndax dañu suñu borom waxtu julli jot na te neewoon naa duma leen ñaan dara duñ xam sama soxla suñu borom ni ko dañ seet si ba xam ñor nga am déet suñ tubaab ni sàllaw kul bét ja ak ñokket ja ànd te góor sax defuñu ko kooku nag mënta ñëw ba après ay at ñu muur ko rek dikk ni la ma nga ne génn àdduna tubaab yi gëm ko déedéet tubaab yi def nañ seen test ba xam ni kii nekkatu fi certificat de décès bi ñu def moom lañ télégramme gouverneur général xamal ni ko génn na àdduna dañ ko yóbbu Tuuba bis boo bii nag nga xamee ci la ñëwee bis boo bii la sëñ Moussa wax ni juboo naa ak saa borom loolu engagement la boo xam ne moo ko jël diggam ak boromam juboo naa ak saa boroom ci képp ku fanaan ci bis boobu ñu jéggal la say bàkkaar loolu sëñ Moussa ko wax ndax nee na ñoo ñuy gunge woon sëñ bi bi muy ñëw saa yu bis boobee dellu siwaatee dana ñëw fanaan si ci dëkk bi képp ku fi fanaan ak ñoom suñu borom dana la jéggal loola boo demee ci xasida xam sati rijal boobu sun sëñ bi di waxee yaa rabbana ilayka asku xaali bil mustafa wa xamsata rijali asayqil xawsu xaadiril jeylaani haisil ulumi wal irfaani suma abi yasid al bastami aarifin mubajjalil humami summa tatayfura ibnu isa alhaali suma abi hamid alxazali xaamisum maaruful karqi ajih bisil muqaddamil wali ihdir humo la wax ihdir humo inda mamate xada su sama roog yi tàggali ko sama yaram nañ ko teewe ñooñu teewi wuñ ko roog a tàggaloog yaram ñu delluwaat fañ ne woon danoo ànd ak sëñ bi gunge ko kon buñ na nee danañ fi del siwaat war nga koo gëm sëñ bi waxaat faneen itam ne inna allazina sahidu fil maaraka mujahidina kullu abin musrikin li yanawalun kulluhum yaxbitu ni wa kullun saa'irun li fan la suñ tubaa dëkk tubaa gii la dëkk mu ni mbooleem ñi xeex bu yonent Musa xeex ku ca sa bakkan des wala beneen xeex boo xam dañ koo xeex te lislaam tax nee na ñooñu ñëpp de ñee nañ ma sama cër bi nga am te ñoo ngay ñaan suñu borom ngir ñëw siyaare si ma sama dëkk bi baneen bi ca mu ni sàkkara ni rabbi inda jundihi suñ borom sant na ma ca kanamu armem ba raamu siyaarati min indihi ñoo ngay ñaan suñu borom ndigal ngir siyaare si ma fii rek lañ jëm si moo tax sun borom dana seetal wecc ci ay bàkkaar waaye ci jàng alxuraan jàng xasida istixfaar salaatu ala nabi borom xam-xam yi laa biire ñi xamut ñi am doole dimbali ñi nga xamante ni dañoo néew doole loolu la sëñ Moussa daan def bu ca ngoonee mu bind ab discours fàttaliwaat nit ñi li leen taxoon a wuy si sëñ Tuubaa fàttali leen bëgg-bëgg sëñ bi ak naalam yu rëy yi nga xamante ni moom la fi bàyyi woon ba képp kuy demaat danga nga yóbbu lu leer nga xam ni bu ëllëgee kaneen koo séen ci laneen da nga xam ni kii la mu waxoon moo ci jóg waaye fa mu jógee moom lu leer la fa jële loolu mooy mooy bis bi mu waxoon mag ñi ni leen nag ku ci yor yaari mbubb na la jaral jaay menn ma ku ci am loo ma nar a jox te am mbokkum tali mu bëgg a ñëw te mënta ñëw jox ko paas jox ko mu paase ngeen ànd ñëw ni leen li ngeen tontoo saxaar gi moog li ngeen ma jox ma def ci sa sama poos ñooyam soxlawuma alal ji rooy laa bëgg ñu fanaan si Tuba loolu lu rëy rëy la te damay wax ni ñetti guddi laa xam man xaw ma ku xam yeneen waaye ñetti guddi laa xam yoo xam ne dañ ku ca fanaan tàggoog bàkkaar laylatu xadar sun borom a ko wax xayrun min alfi shahrin guddi gàmmu sëñ Tuubaa ko wax wa man yuasim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu xada sëñ Tuubaa ko wax amut sikki sàkk ganeen guddi gi jees mooy gi suñ mënu saa waxee ni juboo naak saa borom ci képp ku fi fanaan sun boroom jéggal say bàkkaar te sëñ Tuubaa itam boo demee ci mawaahibu rahman ca tarjumaan ja moo wax ni allahuma ical xayra ayyaami yow ma alqaak suñu borom maa ngi lay ñaan nga def bis bi gën ci samay bis mooy bis bi may dajeeg yow mu gënal ma ci samay bis waaye ngoruk sëñ Tuubaa ak ak ku dëgëram ak diine moo tax nga gis ni bisub 18 safar fi mu ko teg fenn tollu ko fa waaye damay wax ni la baykat bi ngàbb aw simiñam ak jaasiyam dem di ruuji bala ne bis boobu moo ma gënal bis bi ma ngàbbee sama bonk di fay da xam ne ngor gaa tax muy wax ak njàmbaar ga waaye bis bi nga ngàbbee sa bonk di fay ji moo moo gën a neex te mooy bisub 19 bi ñu jëm ci tamxarit gi mooy bis bi mu wàcce moo tax sëñ Cheikh Mbacke waxoon ni képp koo xam ne kañaan muurut sa bëti xol da xam ne bisub sëñ Tuubaa bi moo gën a yeyoo màggal ci beneen bis bu dul moom lii rek taxoon moo di ko woote kon yooyu mooy liñ ci bëggoon a dox sëñ Moussa moom yi nga xamante ni nii moo ko doon woote nag sëñ Modou Xabaan ku ne xam na ko daa wéradi woo sëñ Modou Xadi ab jarbaatam ni ko kaay demal ma ci sama nijaay ni ko na ma ñaanal maam Cerno Birahim mooy nijaayam soxna Fatimatu Bintu mi ko jur ak maam Cerno ñoo bokk ndey ak baay ba sëñ Modou Khady demee ni ko sëñ Modou nee na yaram wa daa xaw a libbat bëggoon nga ñaanal ko mu ni ko ndax wax na ko sëñ Modou Moustapha mu ni ko ah man de ci yow la ma yónni jaaruma fenn mu ni ko bu demal boo demee nee ko na ko wax Mouhamadul Moustapha moo fi nekkal sëñ Touba bu ñaanee ñu may ko bu tinoo ko kon mag ñi xamoon nañ li mu doon te maam ko yar lu ci moom moo ko ci def loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax li ci des kàddu yi cant la sëñ am satu sëñ Ahmadou nee na mu ngi lay sant xolam sedd na guy yaakaar ju ànd ak yàqin la am ju wér ci taxawaay bi nga taxaw ci sàmm ormay sëñ Tuubaa ji ndax orma ji sàmm ko moo fi bàyyi woon mag ñi fi nekkoon moom it moom la moo leen fi bàyyi te doxin woo wii la gis ngay dox te sëñ Tuubaa daa wax ni képp koo xam ne dees na la tudd di ma tudd yaa xam loo man a doon ci man te su nit yamoon ci yow du ma ko jaral agsi ndax saw melokaan Sëñ Tuubaa nee na doo jéggi siraat mukk te layowuñ ko maag yow te lii ngay def rusoo sëriñ bi fekk la ci kon nee na mi ngi lay ñaanal ci darajey pàkk bi ak ki ko sancoon ak la tax mu sañc ko yàlla na la suñu borom taxaw yàlla na la yàlla gàttandu ba nga àgg fi nga jëm te doo am mennum ndog nee na mi ngi ñaan sirrub ayib wa maa nanshaq min ayatin maa nanshaq min ayatin aw nunshiha naati bi xayrin minha aw misliha alam taalam anna allah ala kulli shay'in qadir nee na sirrub ayib boobu yàlla na ko suñu borom wane ci sa jëmm te aaya ba suñu borom da cee wax ne maa nanshaq min ayatin aw nunshiha mooy kiimantaan gu leen yàlla mën a wan ba nga jàpp ni ganeen kiiman gu ko féete ko amut suñu borom jëlee ko fa wala lu la mën a tamal ba nga jàpp ni lii moom laneen lu ko féete kaw amut suñu borom nee na mën naa ko faa jëlee indi la lu gën loola wala lu mel mag ñi bagage yi ñu doon liggéey lañ yóbbu yóbbuwuñ ko lañ amee ci liggéey ba lañ yóbbu waaye bagage yi ñu doon liggéey mi ngi fi <laughs> lañ amee ci liggéey ba nag yóbbu nañ ko wa amma ma yan faaw naas fayam ko su fil ard ku amut sag yaa fuusa la xañ moo tax nu war a feddiliwaat laxasaay bu baax a baax sëñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax a baax mi ngi lay ñaanal bu baax a baax njaboot gi nga xamante ñoom la jaboote it ñun ñëpp nu ngi àndandoo di la ñaanal ndax jëf ji rëy na lool sedd na xol it rafet na lool fa tabaarakallaa te li tax ki tax nga di ko def ñoo ci bokk yam bu la neexoon woote ko ci sa kër def ko waaye sagal sunu kilifa gii di sëñ Ahmadul Muxtaar ak wane ni yëf yi ci laa bokk moo tax nga indi ko fii loolu xam nañ ko bu baax a baax te ñaanu dongo yi du neen sëñ Matar Penda Jeng nee na damaa dajeeg sëñ Tubaa ci biir kees gi njaareem nee sëñ Tubaa jox ma juróomi doomi tàndarma ma ni ko yoolu julli juróom yàlla na la ko yàlla defal nee ndekete tàndarma ji ab saako la nee sëñ bi ni ma yàngal sa mbubb ndax ñaan googu mu ko ñaanal ne ma yàng sama mbubb ne sëñ bi ni bàyyi kalamba bi ba mu fees mu sottil ma ne ma ne ko yoolub Ababacar Ousmane Ali ak Seydina Omar yàlla na la ko yàlla jox ne sëñ bi wéq ma saako bi ni ma jëlal kon ñaan am na solo trop sëñ bi noo ngi lay ñaanal ci darajay pàkk bi yàlla na suñu borom taxaw yàlla na suñu borom sàmm ñaan lañ am mooy sunu ngànnaay te sas nañ ko sas woo xamante ni ni du boy yàlla mi nga xamante ne ni dara tawu ko yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla dugal ci biir kaaraangeem kaaraangeeg suñu borom nag moo la ko doon misaal dama naa mooy weñ wu dugg ci biir biteel bu weex ganaar yi wër ko dañuy cof ba sonn waaye duñu àgg ci moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu